histoire extraordinaire di am deux fois ci semaine bi tous les lundis et tous les jeudis bienvenue mesdames mademoiselles et messieurs salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi amaat mbégte ak contentement di leen dalal bu baax a baax ci seen bile émission di wéy ci turu histoire extraordinaire bile émission day dox waaye itam di wax ak jëf ci histoire yu doy waax mbokk mi laataa ñuy tàmbali ñu laaj leen ana yen pexe lañu war a jël ci cas communautaire yi kon nag ñoo ko déggandoo ana naka la ñuy def ba cas communautaire yi dàkk ci sunum réew mbokk mi tey ji ñeenti xarit laa la indil Alioune Ndiaw ak Tafa ñoom ñeent ñi ñëpp ay étudiants lañ di jàng ci genn góor gu baax génn góor gu bëri xam-xam lool waaye nag la muy bëri bëri xam-xam noonu la woyofee moom ko ci nekk noonu élèves yi nag ñeent ñi ma la limal daal di koy respecté lool buy wax ñu koy déglu ak tekk ak teey waaye itam bu leen di jàngal ñu ñuy cocc suivre bu baax a baax ngir mën a comprendre moom góor gi sax di leen yëgal ak di leen xamal ni ñépp mën na noo jàng waaye ay compétence ay talent rek mënul yóbbu fenn kenn xanaa kay nga xam ni moo lay dimbali ci sam njàng du leen lu dul nga jàng ak discipline waaw waaw di defee exercice itam ci la bokk Fallou Ndiaw ak Aline ñoom nag commencé seenum njàng gaaw lool ci xal njàng ma nga xamante ni sëriñ baa ngi leen koy jàngal ba nu am sax ci yenn xam fàllu ci jëmmi boppam dem na ba mën a sax faj li nga xamante ni moo di blessure waaw waaw te sax du ko laal eew ak dagg boo mën a am day ñëw rek xool ko dagg ba daal di effacé wu Alioune itam moom la nga xamante ni mooy la mu mën lool su gisee dara lu toj ak lu mën di doon muy ndaa ak lu mën di doon lu tas daal dina fexewaat ba rassemble ko boolewaat ko dajale ko te du ko laal benn yoon ay baat lay wax rek mu daal di antu njaw moom xam-xam bi nga nga xamante ni moom la am moo di mën na fexe ba li nga xamante ni moo di xobu garab gu wadd ci xob wa ba dee mu daal di koy jilaat yëkkatiwaat ko tegaat ko ca garab ga muy dundaat te du ko laal ci ay kàddu rek la ko yëkkatee tegaat ko ca garab ga ba muy dund. Tafa moom mënula woon def lenn ci loolu yi nga xamante ni xaritam yi ñu ngi koy def ñetti xaritam yi wax yépp ni mën nañ ko te di ko def moom ñetti yooyu mënu cee def benn. loolee nag xaw koo jural tuuti kersa gu bare bare bare ndax kat ñetti xaritam yi duñu jóg ci di ko reetaan moom sax jéem naa def la nga xamante ni moo di li gaañ yi def jéem a boolewaat ay morso yu tas jéem a wéralaat jéem a defaat la nga xamante ni moom moo di delloo dundalaat xobu garab bi nga xamante ni dafa dee waaye ñett yooyu mënu ci lenn waaye nag ba tey loolu moom yéemu ko jaaxalu ko benn yoon moom Tapha loolu yéemu ko jaaxalu ko benn yoon mu daal di gëm yàlla xam ni lii xëy na dama ko warul mën rek delluwaat ca ka nga xam ni moo di sëriñam ñëw ci sëriñam ni ko ana kan mooy boroom xam-xam professeur ba daal ni ko tafa la nga xam ni boroom xam-xam dëgg mooy kiy xalaat soog a jëf ñetti xarit yi nag nekk ci village bi am xam-xam lool commencé ñëpp di leen tagg ñu nekk ñoo xamante ni ñu ñuy tudd lañ saa su nekk ci penc yi ci ëtt yi fépp fu ñu nekk rek ñoom ñett la ñuy joobee ñu dem nag ba yëg seen bopp ci ñi xam-xam boobu nga xamante ni am nañ ko daan yi ah gaañ yi il est temps que nag ñu daal di génn li nga xam ni mooy ci village bi dem ci ville. ndax xam bi nga xamante ni yor nañ ko kenn yoru ko ci réew mi. nanu génn liggéey ci bu baax a baax. kenn ci ñoom daan ni waa ñun bu ñuy génn di dem. ana naka la ñuy def tafa ndax dañ koy yóbbaale. Njaw daal di tontu alin ni ko. duñ ko mën a yóbbu ndax lan dafa yembare. li ñuy def xamu ci dara munu ci dara tey jii buñ ko yóbboo dañuy sonal rek alinu daan ni ko suñu xarit la nañ ko jàppale rek yóbbu ko segam amul doole segam xamul dara ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo xamante am doole ñoo ko war a mën a protéger ku protégé wul sa xarit ana kan ngay protéger gaañ nañ ko yóbbaale rek mu gën a wóor ci naka noonu kon ci li nga xam ne moo di tukki bi ñu war a tukki génn ci village bi ñu nekk jëm ca ville woo nañ ki nga xamante ni moo di Tafa ak ñoom ñett ñëpp ñu ànd massé boole lépp loo xamante ni luy dund la ñu def ko seen i saak xaalis lépp lu ñu soxla loo xamante ni rek dinañ ko mën a yittewu jëm ci li nga xam ne mooy seen voyage bi yu daal di koy jël waaxu wut si ki nga xamante ni moo di yaa seen sëriñ professeur bi nga xam ne moo leen doon jàngal ngir di ko tàggu waaye genn kàddu ga nga xamante ni moom la leen sëriñ ba dénk laataa ñuy dem professeur ba daf ni leen yéen xale yi saa su nekk daal bëgg naa lii ngeen koy fànnoo heure fu ngeen mën di nekk muy laataa ngeen di jëf ak lu jëf ja gaaw gaaw gaaw ak lu ngeen ko bëgg jëf bëgg a jëf bëgg a jëf ak lu mën di doon la ngeen xalaat ba noppi bu baax a baax a baax a baax lañ seen xel laataa ngeen koy def muy Alioune Ndiaw Fallou ak Tafa ñoom ñeent ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom daal ni ko sa kàddu yi de duñ ko fàtte mukk dinañ koy fàttaliku bu baax a baax a baax a baax yow mi nga xam ni yaa ngi jàngal ci naka noonu ñu daal di ànd dem daan ni baay bàyyi ki nga xamante ni moo di seen professeur bi di dox ay fan ñu koy dox des jours et des jours ñu daal di dox ba ci yàgg daal ni ah ñun nag nañ daal di noppalu fii nag ndax li ñuy dox Paris na nañ noppalu fii bu ko defee ñu daal di ndékki ba suur mën a continuer li nga xam ne mooy suñu voyage ci naka noonu ñoom ñeent ñu toog bi ñu toogee ba ci yàgg tafaa ci jëmi boppam daal di am lu mu gis daal di laajte waaw lii lu mu doon lii lan la njaw daan ko wa lan la ana lan ngay ragal ci ay yax ay yéexi kese loo ci ragal. ci naka noonu. Alioune daan ni waaw li yéexi lan la. Fallou daal di xam ne ni leen yéex yi de yéexi gaynde la yéexi gaynde rek la mën a door Tafaan ni yéexi gaynde taw. Fallou daan ko da nga maa weddi. defal ndànk moon la man de leen mën naa ko boolewaat li nga xamante ni moom moo di yéex yi ba mu nekk benn jëmm. su ko defee su boobaa di ngeen xam ndax gaynde la wala déet. Tapha ni ko déedéet bul def loolu laataa muy yeggale sax boole na Yaxya nekk esqueletu gaynde mu daal di ciy ndàmmu nag daan ne gis nga da ngay muus comme man ngir ma nga mën a def lii muusul bu ñu waxee ngay weerante noppil waay yow xamoo dara gis ngeen def naa ko yëpp dajale naa ko lii ku ko gis xam ni gaynde la Aline ni ko moo yow lii mooy say compétence lii ngay naboo lii ngay ndamoo ay yax nga ko def yow li nga xamante ni def nga ko nii di ay yax mën naa ko dellool léegi li nga xamante ni moom moo di ab darab der ba nga xam ni moom la amoon lépp mën na ko delloo ay karawam ay weewam nga gis ko nii xam ni lii gaynde la bañ yéeg lépp dara du manqué lépp mën naa ko cee delloo te nag du mat ay minute de ay seconde rek ma daal di koy delloo noonu nga xamante ni noonu la meloon dafa daal di jóg ni leen ay bëñ ay wee di di ay sama gars yi bàyyi leen ko nii ñun xam nañ ne gaynde la te dañuy toog pour ndékki nañ ndékki rek te dem ko yow yambar nga rek da nga mënul moo tax nga nekk fii di soof toogal waay ci nekk noonu Alioune daal di koy def dégluwul sax ki nga xam ne moo di Tafa muy wax ba yeggalee mu daal di commencé rek tari tari fat fat atul une minute laa la wax gaynde ga daal di nekkaat gaynde waaye amul bakkee Tafa ne ko waaw man jaaxle naa te tiit naa waa anal moo tax nga def nii mu ne ko lii man rek man maa ko mën a def ci ñun ñeent ñi ñëpp def naa ko wane sama xam-xam àdduni ah, waneel da nga am xam-xam doo wane gaynde gi ñàkkoon na li nga xamante ni moo di yaramam akub deram joxaat naa ko ana lan moo ci wax dina ko noonu jaawa itam daal billaahi yow da ngaa foog ni yow rek yaa fi am xam-xam yow rek yaa fi mën a wane sa bopp da ngaa man gaynde gii nga xamante ni moom moo tëdd dee nii mën naa ko delloo bakkanam léegi wan li leen man maa leen gën a aay fuuf yéen aayoo leen sax dafa daan ni nga ni ko waaw waaw mën naa ko de waa léegi nag kon kan moo gën a muus kan moo gën a aay ci ñun ñeent ñi tafaa boo ñu doon jugé Aliou ni ko déedéet moom mënul jugé benn yoon mënul décider benn yoon ci say ay wax kese boo bëggee ñu gëm la da ngay def ñu gis waaw waaw da ngay def ñu gis bu ko defee moom mu mën a décider xam kan moo gën a aay ci ñun ñett ñëpp dafa daan leen man de xaw kan moo gën a muus ci ñun ñeent ñi ñëpp waaye xam naa ki gën a foor ëpp fi doole muy gaynde gi bul yee gaynde gi bàyyi ko mu nelaw bu ko dundalaat mukk mukk dimbali ma waaw yow lan la sama xarit yëpp daal di wane li nga xamante ni moo di seen xam-xam ñoom ñëpp ku nekk wane sa bravoure sa njàmbaar man ma am xam-xam bu ma mën a wane ci gaynde gi léegi léegi léegi nga ne du ma ko def waaye yow da may soxoree wala yow daal njaw wax na dëgg dañ laa war na bàyyi fa nga xamante ni moom mooy fële ca dëkk ba bañ laa indi ndax yow da nga maa soxore ànd ko waw dëgg la waaye professeur bi nee na avant muy la sax rek njaw daal di koy arabtu ni ko yow yaa ñuy jàngal professeur bi wax yow mi nga xamante ni amoo benn compétence yow mi nga xamante ni mënoo dara waaye dugal fii waawaaw waaw yow wax nga dëgg de moom amul benn connaissance amul benn xam-xam ana naka la bëggee rek daal di ñëw nii dañuy jàngal di wax ak ñun waaye dugal fii waay daan leen man de am naa benn xam-xam boo xamante ni leer na ma ne man na maa sauvé ci lépp lu ma mën muy lan xalaat laataa may jëf tafaa ni leen waaw segam demee ne noonu léegi may leen ma kon ma daal di daw yéeg ci garab gi bu ma yégee ci kaw garab gi ba ca kaw a kaw a kaw su ko defee nga delloo ko bakkanam ndax bu loolu boo ko delloo bakkanam gaynde gi lekk ma naka laay xamee yéen ñett kan moo ci gën a ay ñu daal di koy ree ni ko yambar bi nga doon yow xamoon nañ ni li ngay wax laaj cot tuye yéegal ci kaw yéegal mu daal ni leen waaw bàyyi leen ma ma yéeg ndax su ma yéegee ci kaw sax dama leen di tiim yéen ñëpp dinaa leen gis bu baax mën a xam kan moo man ci yéen ci naka noonu njaw daal di def la nga xamante ni moom mooy xam-xamam utiliser ko daal di wax la nga xamante ni moom mooy ay kàddu yoon ko jàngaloon gaynde gi daal di xool ñoom ñett ñëpp ñu commencé nag di tàcc di kontaan di ree ndax lan ku ci nekk ci ñoom wane na xam-xamam. waaye reegoo googu nga xamante ni doon nañ ko ree reege yàggul de. ndax gaynde gi dafa jóg bi mu jógee rek daal di xiiru ñoom ñett ñu commencé lox di pat te nag dafa jógaale mer ak xiif lool. tafaa ca kaw naan leen daw leen daw leen daw leen. waaye ñoom ñett dañoo tiit lool ragal bay lox ba tànk sax mënuñu ko seq ngir wane ginnaaw. ci naka noonu la gaynde gi daal di dal seen kaw ñoom ñett ñëpp. dévorer leen jëfandikoo leen ñoom ñett ñëpp benn par benn dafa moom ci kaw garab gi rek di xool xool mboole seen li nga xamante ni noonu la chaîne bi demee yëpp ci naka noonu la Tapha daal di wàcc gis ay yaxi kese yi nga xamante ni moom mooy yaxi xaritam yi mu daan ni ci yàlla yéen ñett ñëpp mus ngeen mus ngeen de waaye bu ngeen déglu woon kàddu yi nga xamante ni moom la ñu professeur bi jàngal tey jii du ngeen agsi fii boroom xam-xam dëgg mooy kii xalaat soog a jëf kon nag mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni mooy seen histoire extraordinaire bi leen indi la muy lan ñu war cee mën a jàngatee lu bare bare bari nit ki ak loo mën di def ak lu mën di doon ak loo maîtriser sa xam-xam xam loo ko am am loo ko mokkal mokkal loo ko miin miin laataa ngay jëfandikoo sa xam-xam boobee xalaatal ana yan conséquence la la mën a jural ndax tey jii ñoom ñett ñi bu leen leeroon nii bu ñu yëkkatee gaynde gi fii la ñuy mujjee moom kon tey jii duñu ko def waaye itam ak loo ñàkk xam-xam ñàkk xam-xam del jéem di utiliser sam xel fekk yaa ngi utiliser sam xel di mucc ci yu bare bare oh histoire extraordinaire kii loolu leen leen indiloon ci seen histoire extraordinaire di leen jox dig daje ci beneen histoire bu doy waar jaageen ci histoire extraordinaire di am deux fois ci semaine bi tous les lundis yi tous les jeudis